asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu nuyu mboolem ñu dégg suñu kàddu wala muy suñu jëmm kenn ku ci nekk ñu koy nuyu ci nuyoo bu gën a jot bu gën a sell bu gën a rafet eh, di leen xamal ne ñoo ngi fii tey ci kër Cheikh Khadim bu mag bi nekk ci Touba ci wetu jumaa ji nekkaat tam ci biir salle bi nga xam ne commission communication et culture waajale na ko mu fi jàllale di waxtaan lépp lu xam ne dafa aju ci commission communication te mooy sous commission accueil hébergement euh, les journalistes yi nga xam ne ñu ci réew mi ak ñi ci biti réew yëpp loolu nag yàlla dogal na bi nga xamee ne Cheikh Mouhamadul Bachir mu sëriñ Abdul Xaadir eh, sosoon na comité bi ci turu Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke yàlla yàlla yokk ay leeram mu sos mu comité bi séddale ko ci juróom-ñeenti commission bii ma nekk maa ngi ko yore woon. 2008 ba fii ñu toog di wax ak yéen soo commission boobu nag li nga xam ne moom lañu ci sëriñ bi sant moo di ne euh, jàpp na ne gan guy ñëw Touba gu mën a doon ganu sëriñ bi nga waaye moo am ci ñu ñuy tudd ay journaliste te màggal gi ku ne xam na ne woote la woote nag bu njëkk danga daan taxaw wax sa kàddu ñëpp déggandoo la waaye léegi ak fi jamono toll bu fekkee da ngay woote rawatina muy woote bu toll ne bu sëriñ bi nga xam ne mooy xaadim rasul xam ne képp koo xam ne suñu borom santoon na alayhi salaatu mu woo ko dugal ko ci diine ji kookee Seexul Xaadim suñu borom santaat na ko ci ndigalu yonte bi sallallahu alayhi mu wooteel ko ñi nga xam ne ñëpp duggagun ci woon ci diine ji waaye itam mu salaat mboolem ñi nga xam ne ñu ngi woon ci diine ji loolu nag kenn mu tax ci benn ëtt yuuxu ñëpp dégg la moo tax sëriñ bi jaarale ko ci anam yu wuute yenn yi def ko bind bàyyi fi yi ci des mu doon ko waxtaane ak i tomb ñu ñu ci sukkandiku ba tey jii jamono nag àgg foo xam ne façon wootin wu mel nii mooy jaarale ko ci média mooy li gën a gaaw moo tax bu ngeen xoolee gis ngeen li ci ëpp solo lépp ci màggal gi ci ci communication yi lay jaare tàmbalee ko ci caravane ba ba ci colloque bi ngeen gis ñëpp xam nañu am solo bi mu am solo ñu ñu composé ci ay délégation yu jógee ci biti réew lu mat euh, fukki réew ak ñeent yu bokkul borom xam-xam yu kawe ñëw fi am ci ay fan euh, génn fi lu xam-xam bu yaatoo yaatoo yaatu euh, bi loolu jàllee ñu dugg ci tàmbale ci biir màggal gi àndaat ko ak presse bi nga xam ne Eh, mbooleem fu gan nekk daañu fa dem fekk leen fa moo tax bi nga xam ne eh, agsi nañ fii si tey ñu war leen a leeral li nga xam ne mooy li ñu dënkoon eh, te mooy li ma waxoon ci njëlbeen muy ak accueil hébergement restauration loolu dafa nekk lim boo xam ne fi ñuy tàmbalee mooy nu mu toll mooy li ñuy amagun rek ci ci list fi na dem na huit cent trente quelque personne yoo xam ne ay ay ay ay journalistes yu bokkut fu ñu bàyyikoo la am na ci liste spéciale boo xam ne ñooy ñuy jóge ci bitim réew tubaab yeeg eh, am na France am na eh, Al Jazeera ci arab yi ba suñ mbokk Gambien ba fu ne ci àdduna bi daal ñëpp ñoo nañ ba ci eh, daaw recevoir nañ ki nga xam ne moo jóge woon Chine international muy seen directrice ren itam ñu ngi koy séentu incha allah waaye lim boobu ma wax ak li muy niru lu bari lépp sëriñ bi ci ndigalam ak ak jàppaleem. tax na comité bi waajal na leen ci lim boobu lim boobu ma tudd waajal na leen ci nekkuwaay waajal na leen ci euh, lépp lu nekkuwaay ba di soxla luñ ñu fa a def waaye waajal na bu ñu agsee ba noppi nañ leen di taxawoo foofa ba seen dara du manqué ci ni ko sëriñ bi sante santaane te mooy bernde bernde euh, kanam gu yaatu moo koy jiitu Euh, dal yu sell moo cay topp ñam yu ñu toppatoo ba mu sont moo ci topp te gis nañ ne lu ci nekk ci ndigalu sëriñ bi euh, ak ñaax gum ci ñaax daañ ci góor góorlu ba kenn ku ci nekk daal fa nga nekk fañ la dalal daañ la boole ñu lay toppatoo ci fan yëpp lépp loo soxla euh, diirub li ngay nekk ci ci ci suñuy loxo daañ la fa defal loo xam ne da nga xam ne ñii daal ñu ngi defal teraanga joo xam ne gan ga nga gën a fonk ka nga gën a fonk dénk la ko la koy defal incha allah fas nañ ko defal yéen ñëpp fas nañ ko defal mboolem journaliste eh, li nga xam nag moom moom fokk ñu leeral ko ci itam mooy at bu jot danaa ko wax di ko waxaat mooy eh, fu mel ne premier site bi nga xam ne mooy bi ci ëpp solo te ñëpp xam ko muy ñaari étage ñu di ko wax maison de la presse. bu docteur kan kooku moom dafa jël kër ga jox ko hadiye sëriñ bi nga xam ne at mu man maa koy tëj maa koy tijji maanaam bu màggal gi dikkee maa koy tijji ñu setal ko euh, bokk journaliste ñu dal fa buñ jàllee it maa koy tëjaat tànk dafa demaat ba ba at mi dellusiwaat nga xam ne seen këru bopp la kon nag kooku ñu ngi koy bañal beral cantam bu baax ak ngërëm moom bu baax ci ci euh, ndigalu sëriñ bi sit boobu bu jàllee itam. wax naa foofu benn bu boobu dana jël ay cent et quelques personnes ñaareelu site bi mooy bi nekk gaar bu ndaw ñu gën koo xam ci boutique américaine euh, sëñ Modou Diop jóob et frère nekk fa moom itam moom it foofu ñaare fa la yëpp fa la ñuy dalal euh, lu mel ni waa RTS ak lenn ci presse privée bi foofu itam lu ëpp cent personnes danañ fa nekk daanaka deux cent personnes danañ nekk foofu mu ñaari site am nañ beneen itam ci booru vingt 28 foofu kër sëñ ma sàmba la am nañ fa juróomi appartement moom itam waajal nañ ko la fa waroon lépp lépp dem na fa foofu itam la fay nekk dana ëpp 100 moom itam ñooñu ñëpp ci presse privé bi lay nekk. am nañ itam kër suñu mbokk sëñ Xaarim Bousso foofu itam waajal nañ ko la fay nekk lu mu néew dana mat juróom juróom juróom-ñaar fukki nit eh, am nañ tam kër soxna su Mbacké ca Guy Mbind foofu itam ña nga ko fa bàyyi di ko réserver pour yenn gan yi nga xam ne ñooy étranger yi eh, ñoom étranger lañu moo tax yéen bokk si ñoom suñ ñëwee suñuy gan lañu waaye yéen it seen gan lañu. moo tax ñu bëggoon eh, man leen beral foofu ñoom seen seen seen kii yu bopp eh, su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom lañ fi am ci ay ay ay barab yoo xam ne fas na yéen a dalal fi gan ñi tàmbali nañoo ñëw ñun itam ñu ngi suñuy wàccaay. fas nañ yéene daal li ñu ko sëriñ bi sant népp incha allah bi daañu ci def luñ ci man ak luñ ci mënut dal yooyu mu wax yëpp itam fu ci nekk wut nañ mbooloo moo xam ne ñoo fa nekk fas yéene nekk ci e, soxla yi ña fay ñëw diirib bi ñu fay am yëpp da ko tàmbalee ca kër docteur Kane e, sama sama mbokk sëñ Mbàkke mu sëñ dal mare madam moom moo féetewoo foofa moo leen toggal benn waañ bu fa la nekk moom itam at mu at mu jot lu ne dana ko ci daj ak ñañ koy booleel muy kuy sëñ Fallou Gueye ak ñi ci des Amadou Niang Cheikh Faye ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ seqal yëf yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñu ngi koy gën a santaat di ko gërëm di ko xamale sëriñ bi gis na eh, liggéeyam mboolem li nga xam ne itam eh, war am ci yëf yi eh, ci ci waajtaay ginnaaw bi ñu waxtaanee sëñ Ousmane mi nga xam ne mooy coordinateur bi seet na mbooloo moomu li nga xam ne warees lañ ko defal li ko tàmbalee ci ndox yi ñuy naan ak ya ci aju yëpp ba ci pompe yi nga xam ne ndax ku ne xam ne màggal Tuubaa ñaare eh, ndox dana fi manqué waaye fexe nañu ba barab yoo nga xam ne mbooloo yi dafay daje daañu fa yóbbu réservoir d'eau yoo xam ne dana jël lu mat 5000 eh, litres ci ndox yóbbu fa pompe boo xam ne mooy yëgal ndox mi nga xam ne daal kon damay jàpp ne li nga xam ne daal mën nañ ko lépp ci waajal gan goo xam ne eh, kii nga gën a fonk dénk na la ko loola jël nañ ci matoo yañ ci war a jël yépp lépp loo xam ne gis nañ ne jombul dana ca manqué ñu jàpp ne loola du ci suñ yéene du ci yéene ki leen ñu dénk waaye ñu delloo ko ci matati doomu aadama waaye delloo ko ci nangami million ngi nit fu ñuy taseeloo ngir toppatoo leen ñoom ñëpp ba kenn ku nekk la nga soxla nga am ko à 100 pour cent damay jàpp ne loolu xëy na ndaw ko ndaw rek moo koy séntu ñun. kon nag ginnaaw ñu ngi fi ci entité bi. Eh, am na ci loo xam ne Amadou Gueye Ndiaye mi nga xam ne moo ko moo ko yore ak ñi ko sexal mooy war a mën a matul la ci des kon nag ñu ngi sant yëpp di gërëm ñëpp eh, ci turu commission communication ci turu Serigne Cheikh Abdou Mbacke mi nga xam ne moo ko jiite te di ci génnee ay xalaat yu am solo at mu jot ku ne gis na ne màggal gi eh, tolluwaay bu mu am ren bu déwénee dana am bu ko gën a kawe te loolu gën yàlla ci ay xalaatam lay jaare kon moom it ñu koy gën a santaat bu baax a baax ak mboolem ñu bokkal liggéey bi di sant it sëñ Ousmane bu baax a baax ndax ku ne ñun xam nañ li mu ciy daj ak ñi mu ko seqal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu